Aïdara dafa xaw a am gàncax incha allah dinañu euh, daal di kon euh, jàng rek li nga xam ni mooy euh, bopp yi alors kon dañuy daal di rek door ci li nga xam ni mooy li gën a fës rek ci bopp yi nekkaay yi pandémie du Covid 19 CD yi nga xam ni yu jëm ci xol la bàyyeeku ci benn moodu moodu fële ci Touba ak njabootam nga xamante ni bii moom la. Euh, l'observateur xëy euh, daal di bind euh, loolu daal di wax rek ci li nga xamante ni bii mooy yamar maar ak li nga xam ni dund na ko ci ay jaar-jaar force Covid 19 ak absence bu contribution bu opposition bi en question question la itam bu bàyyeekoo ci yéenekaay bi di l'observateur la tribune moom la mu xëy bind mooy li nga xamante ni moo tënkul ci scandale gi scandale xeeñ ci marché ceeb bi ak euh, transporté bi ñu koy transporté loolee ay ndëngte yu bëri yoo xam ne am na ci waa Forum Civil moom dañoo soupçonné ni corruption am na ci te bu boobaa Uba lay doon député en même temps nekk patron d'entreprise gagné marché publique bu doy waar ay question itam euh, am na ci misaalu Diop si mi nga xamante ni bii dañ koy tudd bëkk démb ak démb ak tey bëri na lool ca la mu gagné boobu le marché bu ci gën a doy waar nag mooy koo xamante ni bii absorbement la amoon muy ki moom planète kebab daa gagné ñaari euh, marché daanaka ñu xayma ko ci juróom-ñeenti milliards ci franc CFA waaye nag ma ngay jéem indi kaddu ni yàgg naa nekk ci marché importé ceeb fii ak ñeenti at boobaa gi bat na ñeenti at euh, ba tax ne moom amu ci lu mu ci tiit gagné na marché ba kàddoom yi nag yooyu ñu bëri misaalu waa Front Civil le populaire moom itam dellu soit ci euh, virus bi nga xam ni daa sax fas nag contaminé ceeb ba ak Mansour Faye Euh, wala ceebu maasu faible mu ji contaminé ndax coow li ci am daanaka xaw naa euh, metti mettiwaayu Covid 19. Euh, ni ki itam Diop si ak li nga xam ni mooy gagné gi mu gagné marché Vox Populaire jàpp rek ni échappatoire du transport familial. la leen ci wàllu boobu muy source a moom itam la mu jàpp mooy sarsarlu ma ngay xeeñ maanaam yëf yi daal xel tey na ci ci doxalinu Mansour Faye ak tànn téyfam ci Diop ak anam gi ñu ne la séddale ceeb bi dèjà ñu sax ci séddale waaye ca transporté ceeb ba yóbbu ko ci ñi ko yeyoo doon fi nekk nii xel tey na ci tey itam lëndëm na lool noonu itam la ko Sud Quotidien xëy bindee ni jënd ak euh, jël ceeb bi yóbbu daanaka njuuj njaaj gi ci am war naa tiital xelu askanu Sénégal ci ni ñi ñu jiite dëgg-dëgg nu ñuy xalaate jënd ceeb bi am na njuuj njaaj transporté ceeb bi yóbbu ko ci ñi ko soxla am njuuj njaaj kon bu ñu yëggee ci séddale ba génn ci njuuj njaaj day lu jafe lay doon ñaari cas détecté ci parcelle ak ci mbaaw loolee ngi am ni ki démb ci transmission communautaire moom la yéenekaay bi di libération xëy bind le soleil moom la mu bind mooy euh, ki nga xam ni moo di Souleymane El Bachir Diagne euh, joxe xalaatam ci li nga xam ni mooy euh, wopp ji di covid 19 moom nag jamono jii sax euh, dafa nekk ci confinement ci États-Unis ga nga xam ni fa nekk waaye teewul ma nga ci def jàngat bu am solo xam nga moom ay kàddoom daanaka lépp xam-xam lay doon Souleymane ay Bachir Diagne euh, laas moom itam euh, wax na ci li nga xam ni moo jëm rek ci Covid 19 ak ñi nga xamante ni bi wér nañu toll ci cent quatre vingt trois ak ñi nekk jamono jii ñu leen di traité toll ci cent jéego yu am solo yoo xam ni Sénégal def na ko ci. lu mooy loolu itam euh, révélation wu benn benn benn benn euh, toxicomane ak itam tam euh, ak yi nga xam moom la indi ci wàllu dundinu askan wi ci ay njombe loolu itam yéen kaay bi di laas bind na ci le quotidien bind na tam Louga ak loo bi nga xam ni am na ko ci wàllu tiitaange ak Covid 19 nga xam ni yokkute gaa ngay am foofee ci diwaanu Louga. tax na askan wi am tiitaange jamono ji tembe mooy li tax euh, yéen kaay ba def ay nataal ni bienvenue à Louga mooy seen table boobee ñu bind booy dugg luga waaye def ay photo itam covid 19 euh, muy mi muy virus bu doy wax boobee mel ni moo lay gàttanu foofee ci diwaanu Louga kawteef euh, ñu wax itam ci yokkutef njëgu transport gi nga xam ne nee nañu dafay yéeg ci yéeg gu doy waar vitesse boo xam ne kenn mënu koo contrôler fi nekk nii ci transport bi ci Sénégal situation oblige ndax Covid 19 loolu mooy li yéen kaay yi nga xam ni moom la ñu xëy euh, fësal ci seen i xët yi njëkk incha allah faram fàcce gi ci xibaaru digg ba ca gàtt maam ci bundoo yi yaa ngi